ah arbitre sifflé na final bu mag bi war a dox ci diggante Serigne Ndiaye bu Faas. ah ak Pakala Mbour Montagne. ñoom ñaar ñëpp dañ ko mérité. ñëwaat na ndeysaan. waaye ñoom ñaar ñëpp ku ñu da ngaa respecté sa morom. mu ngi noonu Jax production. du ay caaxaan di. ñaari million. Eh.

bu njàppante mu jeex épreuve de force lay doon waaye Pakala na ko jox cër xale am na doole xoolal sëriñ ni mu jàppee dëbb dëbb na ngeeñ ubbi tànk yi xale la am na ronge wax na dëgg eh, eh, Serigne Ndiaye moytul Pakala Serigne Ndiaye moytul Pakala min na lii min na ko eh eh eh Pakala Serigne Ndiaye daan na